ñuy dalal tey euh, Mamadou Sy Albert di analyste politique nekk ci buumu jokkoo bi ñu lay euh, nuyu euh, sëñ bi si. maa ngi lay fay Elisabeth Diatta ah, donc ñu waxtaanee politique gi nga xam ne jamono ji mën nañoo ne fees na fi del li jëm ci manifestation gi Yewwi war a amal tey ak ñenn ci opposition bi ñu door li ko waral li ko sooxe mooy suppression liste titulaire bu Yewwi Askan Wi léegi nag ñoom duñu dem ak lu dul seen liste euh, suppléant li ni mel nga koy décrypter. waaw mën nañu wax moom euh, mësul loolu mësul am mësul am ci élection euh, Sénégal surtout élection législative moom daaw ñu gis liste titulaire mu bañ a bokk loolu mësul am léegi nag lu ko waral defe naa lu lu bari la lu bari la mais mm. mën nañu jàpp que conseil constitutionnel jël na dogal moom rek moo am sañ-sañ jël dogal ci wàllu boobu. Mhm. wante dogal boobu euh, ñu ci àndul bari nañu bari nañu am na ñi nga xam ne seen am xam màcc na ci wàllu yoon euh, am nañu expérience ñu nekk université ñu nekk ci élection depuis depuis ay ay at ay at. Mhm. ñu bari ànduñu ak décision boobu. Mhm. donc euh, suñuy xool daal ñuy conseil bi am na nu def interprétation. Mhm. bon am na ñu ci àndul. loolu aussi euh, ci la ci la bokk wante nag bu ñuy xool aussi euh, ci euh, divergence yooyu. Mhm. defe na arrêté ministère de l'intérieur bi moo indi coow li. Mhm. ndaxte boo xoolee ci processus bi. am na ay difficultés yi nga xam ne conseil constitutionnel c'est xoolul bu baax a baax lan mooy difficulté processus électoral bi. Mhm. administration bi euh, soo jëlee même première euh, décision bu conseil jëloon. Euh, mhm. moo doon nañu bàyyi waa yeewu askan defaraat seen liste ci département de Dakar. Mhm, donc dafa bañal dafa bañoon dafa kaase woon décision commission bi nga xam ne moo doon recevoir liste yi. yi donc décision boobu mu kaase décision boobu euh, conseil constitutionnel dafa waroon xool bu baax a baax arrêté ministre de l'intérieur bi bu hmm. bu ko euh, bu cassé woon décision arrêté boobu c'est sur et certain que yeewu askan du am loo li li mu am ni hmm. bennoo du am li mu am ni hmm. donc dañu euh, defuñu lu leen waroon lu leen waroon parce que arrêté ak loi loi moo ëpp doole arrêté malheureusement bon ñu ñu ñu ñu nangul mi arrêté ministère de l'intérieur bi biñ ko nangee may lool lool lool conséquences yi yu bari la. moo andi li soo gis li xew nii tey. moo waral loolu yëpp. Hmm. du du affaire loi du affaire euh, manque de respect mais conseil bi moo waroon rejeter arrêté ministère de l'intérieur su ko rejeté woon dina gën a gis dina xàll yoon. bi nga xam ne yeewu dina mën a participer bennoo dina mën a dina mën a participer mais malheureusement mu dëgëral euh, arrêté ministère de l'intérieur bi. Mm-hmm. bon boo xoolee ci ñu ñuy wax en tout cas ci yoon euh, conseil bi jaarul ci yoon. Euh, loolu nag moo indi coow coow coow lii. Mm-hmm. lii am am na ba pare waaye tey yan élection lañuy ñuy xaarandi ci mim réew. ak cas ah, de figure yi. waa dina dina metti mm. parce que parce que bu ñu xoolee ci élection locale yi yeewu nekk na moo ëpp doole ci opposition bi mm-hmm. kooku su yeewu su su bokkul ci élection yi euh, mu am liste titulaire yi mm-hmm. bon loolu moom dina indi jafe-jafe ci euh, ci yeewu askan dina indi jafe-jafe aussi ci électeurs yi parce que électeur euh, daawuñu dem élection pour voter suppléant loolu mësul am Mm-hmm. Euh, loolu mën na indi difficulté ci électeurs yi mën na indi difficulté ci yeew bennoo naka noonu euh, bennoo aussi euh, de de de gisaguñu wante bu ñu demee ba élection bi pare mm-hmm. naka la ñuy def pour pour fekkente ci liste bennoo bi am na ñi nga xam ne xëy na dinañu nekk ministre bu ñu nekkee ministre fan fan lañu nar a tibb pour pour def pour remplacer ñoom gisaguñ ko mais coow boobu mu ngi seen kanam donc mhm. élection bi soo moytul dina dina bari coow. Mhm. Euh, ci wàllum euh, euh, député yi ñu nar a am. Mhm. du du leere comme nan mu waroon nu mu waroon leer. organisation bi aussi soo moytul dina am dina am coow parce que lu ñuy wax administration bi. territoriale wala ministère de l'intérieur ban taxawaay lañ nar a taxaw ci élection yi. <laughs> organisation bi door na ba pare ndax fu mu nekk nii procédure processus bi yépp euh, lii ci la bokk. voilà. Mm-hmm. Euh, lii ci la ci la bokk. te dafa laaj ministère de l'intérieur ak administration teritorial ñoom tamit ñu ubbi seen bët parce que mënuñu dem ci élection fekk opposition bi mu ngi leen di critiquer. Mm-hmm. administration dafa am taxawaay bi mu war a taxaw. lañu war a préparer ñu bañ a dugal seen loxo ci politique ñu jéem a organiser comme ni ñu koy waxee élection libre et transparent et démocratique loolu aussi euh, ñu ngi xaar administration bi ci ci élection yi. tey mu am ñu jàpp ne suñu démocratie lañ salfaañee jamono ji ak li nga xam ne moom la gis euh, ci wàllum parrainage ak it euh, li conseil constitutionnel jëfe bu yàggul. mais du loolu loolu loolu lu euh, pouvoir bi nangul nangul gis li nga xam ne loolu ñëpp dañ ci teg seen bët. mooy lan boo gisee dialogue politique nga def dialogue politique at ngeen toog waxtaan. Mhm. ay lu ëpp at. Mhm. amu consensus nga bëgg a dem ci élection mais lu leen fekk loolu loolu loolu loolu mënuñ mënuñu ko éviter. tant que amuñu consensus ci processus électoral ci dialogue politique bi lii lay jur euh, defe naa euh, tey ji euh, suñu démocratie demul comme ni mu waroon demee mm-hmm. am ko yaa ngi wax coalition principale de l'opposition ngay dem élection doo yóbbu sa liste liste titulaire mm-hmm. loolu mën mësul am mm-hmm. loolu conseil constitutionnel ci boppam moo warul woon nangu loolu boo xoolee ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur mënul jël arrêté pour organiser élection administration territoriale naka noonu boo xoolee conseil conseil ki nga xam ne moom la ñu wóolu pour mu atte mhm. mais kooku jël dogal kenn àndu ci waaw loolu mooy firnde ne suñu démocratie des na des na lu lu lu bari tant que pouvoir bi ak opposition ñu toog seet consensus Euh, le le soo moytul élection euh, législative dina am coow présidentielle dina am coow et dëkk nag bu dee démocratie mënul dëkk ci coow ak xiroo ak ŋaayo mm-hmm. euh, def naa loolu moom il faut que pouvoir bi bàyyi ci xel que consensus lu am lu am solo ci démocratie la mm-hmm. Yewwi Askan Wi daal di woote ndaje tey ji noo jàngatee justement lan nga jàpp ne mooy enjeu ndaje googule ah daje eh, enjeu bu njëkk mooy démocratie de démocratie tey jii kenn mënul wax ne que askan bokkul ci suñu démocratie. Mm-hmm. lu nañ lu ku nekk xam na ne tey jii ci opposition bi ñoom ñoo gën a ëpp doole. Mm-hmm. donc kooku su jëlee décision def manifestation mais dafay renforcer suñu démocratie. Mm-hmm. ñaareel bi euh, enjeu bi mooy que ñoom dinañu mobiliser dinañu mobiliser. Euh, seen coalition ñu mobiliser opinion bi dinañu mobiliser aussi bitim réew. kon dañuy natt seen bopp. dañuy natt seen bopp euh, loolu lu am solo ci ci ci yeewu askan euh, su amee mobilisation sénégalais wuyu leen mais dinañu xam ne ñoom ñooy doole opposition bi foofu la féete donc loolu démonstration bi la la la nekk. mais aussi dina leen mën a préparer ñu gën a préparer élection législative yi waaw xam naa ne daal test la pour ñoom mais nguur gi aussi test la parce que nangul leen que ñu def seen manifestation pouvoir bi teg bëtam ci capacité de mobilisation d'organisation déglu leen aussi mais loolu lu day defar démocratie le ñun suñu démocratie marché ak protestation euh, defe naa ci la ci ci ci démocratie la bokk te am nañu jot ne ay élections yu leer duñ ko am euh, ci législative yi ndax euh, ndëngte bi euh, feeñ na déjà ndax yow ànd nga ci. non non non non ça ànduma ci ànduma ci parce que fu ñu toll ni ñu ñu ci pré campagne lañ nekk. Mm-hmm. su dee rek bëgg nañu démocratie am Sénégalais yi tànn pouvoir ak opposition dañu war a nangu ku nekk wax li nga xam ne lool nga xalaat. pouvoir bi na wax li mu xalaat ci conseil constitutionnel mu dem ci élection yeewu askan ak opposition bi aussi nañu wax seen xalaat mais ñoom ñëpp nañu nangu élection bi sénégalais yi ñoo war a atte hmm. defe naa suñu nangoo loolu euh, dina dina am élection transparente libre et démocratique dina am te hmm. wante bu ñu nangul pouvoir bi bu nangul opposition bi mu wax li mu xalaat hmm. mu def ay manifestation mën a préparer mais loolu suñ ko continuer tension day am mm-hmm. te situation réew mi fi mu toll mm-hmm. euh, de tension xëjul ci Sénégal xëjul ci suñu démocratie def naa daal suñu amee suñu jëlee ku nekk responsabilité am euh, élection dina am ñu gis taxawaayu Benno Bokk Yaakaar euh, saa bu génnee dafa fekk position bi moom moo tamit moo génn ba pare tey nan nga jàngatee justement posture bi muy taxawaayu bennoo bi waa am ah, mën nañu wax ni kë Benno fi mu euh, nekk tey jii dafay dafay subir pression mu neex leen wala mu naqari leen xam nañu tey ji que ñoom ñu ngi génn ci défaite ci élection locale ci grande ville yi mm-hmm. euh, pression bi day gën a yokk day gën a yokk muy yeewu muy wàllu muy yeneen opposition bi pression bi mun gën a yokk donc soo gisee Benno euh, lu tax mu am difficulté parce que moom dafay topp opposition bi lu opposition bi wax mu bugg a topp bugg a organiser conférence de presse bugg def ay communiqué mais loolu boo yoree nguur waroo waroo réagir. Mhm. wana waroo nekk ci parti buy réagir toujours. Mhm. loolu day wane que Benno am na faiblesse que que mu ngi subir pression xam amu amagul pexe. Mhm. wante lu ñu gis démb aussi bon am na li nga xam ne xëy na euh, defe naa ñu def seen conférence leader euh, Benno yëpp ñëw toog. loolu lu baax la ci hmm. loolu lu muy wane mooy que xam nañ que pression bi rëy na il faut que njiit yi euh, diriger Benno pour Benno mën a dem ci législative ak direction am parce que loolu moo leen manqué woon surtout ci élection locale yi Benno taxawul taxawaay bi mu waroon taxaw xiiroo ak ngaayoo bi nekk ci APR nekk ci Benno ñu hmm. dem ñu am defet loolu suñ ko répété euh, su amaate soo soo moytul ci defet la ñuy la ñuy dem en tout cas ci grande grande ville yi Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mamadou Sy Albert ngay analyste politique euh, jërëjëf. merci bien Elisabeth Diatta merci beaucoup